waaw sonko daal Pastef bu dee man daal nangul ngeen maa signé lii. man ma ñëw ngeen dénk ma wàllum awra. yu dëng yi ma jubbanti yu gàtt yi ma guddal yu nooy yi ma dëgëral. ngeen jox ma porte parole di gouvernement porte parole du Ousmane Sonko. man ma ñëw Pastef. amul jom kii ak yow li ma la fi xeexal defal la ñaari vidéo di la waxal ndax injustice bi la teg. te kat day soo génn prison nii de fraîchement lay soo génn prison kii jom dafa xëy mu gont moom Matar Gueye bii boo nga bi bileen plainte teg kii Jamra tamit yàqal ngeen ma lu bari Jamra yàlla na seen jàmm yàgg pas yooyu eh, aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est c'est un autre ku ko gis yóbbul ma ko suma nuyoo na ko seen amee mu ne nuyu na la Cheikh Cissé maytul sa bopp contrôle judiciaire nga nekk nii de <laughs> kii te yéen daa bëgg a tuub nekk patriote patriote yi yéen loolu ci xam wax leen ko ci ko wanteer yi ndax nangu ngeen <laughs>